yaakaar naa dafay valable ñu laaj la loolu ndax dinga ko répondre ci côté mobilisation waaye dafa mel ni jeunes yi yi nag ni ma leen déggee daa mel ni lak sa gars yi pare nañu Papis maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw ñu ngi lay dolli ziar baax a baax euh, Babacar euh, di jégaluwaat képp koo xamante ne yaa ngi seetaan euh, émission bi nga xam ñu ngi koy def mm-hmm. xam nga di lu sama fans yi tamit mm-hmm. sama fans yi nag kaay ma wax la benn affaire dañoo dëggu de lu leer laa la wax de. <laughs> am na yenn question yoo xam dafa neex a déglu ci nopp am na yoo xam ne neexul déglu ci nopp tey ñoom suñu rakk lañ am na loo xam ne bu leen neexul neexu leen kon donc mënuñu leen ko bañal xamala di wax ne Modou Anta moom c'est pas la première fois muy posé yenn question yi boo déggoo ma naan la sama biir wax ma naan la euh, am na loo xamante ne dama ciy jël ay matuwaay yu wër man xam naa lan moo tax ma wax loolu je ne sait pas que du poser question questions kon donc ni boy yi réagir ni yag nañ ko déglu motax boy réagir ni ñu réagir ni plein droit réagir ni ñu réagir ni mais ñu ngi jégalu ñu nga nous ñu ngi sétane képp ko xam ñu ngi la guerre numéro 2. ñu ngi koy jégalu baax baax ci wax bu sew gi am ni ñun buñu wax bu sew du mais est-ce que tonton woon question bi comme nango nga ko tontoo yow simple on na de manam lolu mom defena naa réponse ba say parce que mom yaakaar amna droit laaj la question de. wa amna droit poser question bu ko neex. voilà yaa ngi dégg mais mais dafa am question yoo xamante supporter duñ ko bëgg a mais est-ce que presse bi journaliste bi laaj tamit supporter ko tax di laaj mom sportif bi lay laaj mbeur mi athlète bi. wa mais déggu li wax mané wa amna supporter yo xam dañoo bëgg bëgg a ñu mbër ma. amna yeen yenn wax yoo xam boo wax. nango xolat bu baax. parce que am na ñoo xam duñu la may dara man mën naa taxaw tontu mën naa ko bañ a jàppee dara mais ñoom mën nañ ko jàppee dara parce que am leen am na yenn question am kenn question seen mbër. Mhm. waaw loolu la. yow daal gis nga ci am quoi. non loolu amul problème loolu dara nekku ci waaw ñu ngi jégalu daal képp koo xamante ne mu ngi si daan. Mhm. loolu la gaa yi xër rek. gaa ñoom ñoo xër waaw ñoom ñoo xër. Fadel daa am loo bëgg noo dugal. Babacar il faut moo dugal loolu. parce que Lac de Guiers c'est un grand champion. mbër la bokk na ci mbër yi gën a yaru comme Siteu ak yeneen mbër yëpp mu te li mu laaj war na ko laaj moo doonte bu demee bay laaj di xalaat supporters yi bay woo mu teg micro supporters yi bi moo daante laajee kenn ku ne réagi dama jël micro bi ne leen du nii ngeen di tontoo question bi li ngeen di tontoo question mooy dimanche ngeen def force délégation jàppale seen mbër booy sax yuuxoo ma wax seen i wax mais damay comprendre parce que fi ma lay xaw a balaa mi li la jóg waroon nga jël micro bi àddu ndax yaa woote ne leen bu leen yuuxoo ndax moo doon taw tey yow la wuy si wuy si wut supporters yi te yow ak Siteu du ngeen ay ennemis lii day jeex diggante Ama Baldé ak Modou Lo moo gënoon a indi coow te jeex na te dara ñaawam ci un reporter am na autorisation wu laaj lu mu war a laaj mbër mi mbër mi mooy tontu wala mu bañ a tontu question boobu génnul cadre làmb ci parce que du ko laaj handball du ko laaj rugby làmb la koy laaj kon loolu lañ ci doon dugal bi ci des mooy loolu am na fa moo daan te ñu ngi koy masawu ndax genn golo laal na gudd na mais loo ca laal borom yëkkul ñun jàmm lañu Cheikh ak yow jàmm lañu Cheikh ak moo daan mais mais na nañuy bàyyi presse bi li ñu bëgg laaj ñu koy laaj parce que tam ëppal presse la ñu soppi ko def ko point de presse kon presse bi la ak mbër mi kon kii laaj am na droit lu mu sentir mu laaj ko. kee booy tontu wala mu tam parce que neewu la loo neewu la da ngaa tàppet neewu la ragal neewu la dara. waaw. xaaral. Hmm.

kaay de. làmb léegi la am tolluwaay bi mais làmb lu yàgg la te site internet amul àdduna di dox ba egg si ci site internet mais souvent nga gis koo xam ni da ngay yaakaar dafa am niveau presse te amu ko. Modou Anta à haute voix mosuma sax tudd turam barka démb ba tontu naa ko ndax ñun géejawaay la ñu dëkk dëkkuñu jàmm gën xasuñu waa jàmm gën. Lac de ak Siteu dañu war a bëree di mayante teranga joxante ci trop bi ñu démarré ba léegi li ñuy wax dara ñaawu ci mais Modou Anta ci boppam moo amul niveau pour yor micro na ma tontu nag ndax ñun dañu ñëw pour jàmm kon yéen da ngeen war ñu appeler sa jàmm mais Modou Anta question dafa xas waa géejawaay dafa xas ñun dirigeants yi xas supporters yi xas mbër mi waxin la xam nga la problème mooy est-ce que Siteu ñun nangu nañ ni li muy indi ci fuul Balla gay sax mënu koo indi Modou Lo mënu koo indi lu ko yàlla may la nangul nañ ko ko te ñu ngi ñaanal waa jàmm gën yëpp ñu gën ko topp ndax li tax muy bëreeg la de guerre mais mbooloom la mais du carrière làmb carrière làmb boolewul Siteu